internet ci wasaare làmb ak la puissance ñoo ngi di nuyu gannaaw nag démb làmb ju mag fi amoon fii si arène nationale tey gis ne ñoo ngi tegoog Siteu bu Ngor démb doon jàkkaarloo kii di Bébé Bismi polémique bu bëri amoon si moo tax tey jàkkaarloo euh, Siteu bu Ngor nar waxtaan moom Siteu ñu ngi lay nuyu. yaa ñu leen di fay wax na gannaaw bi ñu yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur jërëjëf sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Tuubaa jaaraama maam Seera Fall calaw lak sëñ Matar Mbaye nuyu àdduna ñëpp rawatina Ngor yaa samay supporter fi ñu nekk rek maa ngi nuyu bu baax baax waaw si. xale si Toubou Ngor buy buy nii danaan day kam te bu du <laughs> lii beneen différence loolal dara géew ak lii dafa bokkul rek géew jëfa fa am quoi si dafa bokkul rek. da ngay tàngal après boo paree rek pare nga waaw day jeex parce que jaay làmb dañ fay xaalis bu bare waaw dañ ñoo fay xaalis nit ñu jaay bis bi jaay làmb ji loolu dong moo koy waral quoi. waaw duñ jégalu bu baax nag. gannaaw démb ba nga bëree kii di Bébé Bismi coow lu bëri lool lool daan nga ko arbitre ne ñoom sif ne ñoom sifle démb yow yaa bañoon bëriwaat wala say supporter la. non bañu ma sax xam nga rek ku bëre ba pare daan dem toog palaatoo di wax ñu fekk la si plateau bi nee na bi nee na moo la woowaat. waaw fekke na soloon nga say yére sax nga demaat si géew bi nga demaat ba si digg géew bi xam nga. géew bi bare ay nit ñi ne dañuy génn ñi ne duñ génn xam nga gendarme yi ñu génne ñii si géew bi ñu doon déglu suñuy kilifa ba kër ba arbitre si lañ demee nag waaw loolu kase la. yow yow jàpp yow est ñëw bëri si wala. man samay kilifa laa doon déglu rek eh, samay kilifa ak sama ménager rek laa loon déglu. la waxoon. dara ñoom ñu ñoom laa doon déglu rek ba kër arbitre si lañ demee ñun tamit ñu demaa ah. loolu kase la waaw si. sama teewaay ci CNG sama kilifa moom ma woo rek sama manager Pape Diagne Seras loolu kese moo tax sama teewaay fii nii ah. waaw sama kilifa moo ma woo sama manager Pape Diagne Seras loolu moo fi indi quoi. ñu maanaam lañ joxe fu mu toll nii sans verdict maanaam ndam amul ndam dikkul ndam demul. waaw si yow laa ko loolu moom si yow laa mais ñu ngi déglu suñu kilifa rek waaw lu ñu wax rek bu génnee lu mu wax rek. waaw ñu ngay si suñu kilifa bu baax kay. sa manager nee na fu mu toll moom duggoon na duggoon na recours pour ñu jox leen ndam noo gisee loolu. waaw loolu dañ ñu koy jox sax amaana arbitre bi day juum rek ni ko dul juum amul eh, juum na Sénégal ñëpp dafa xam àdduna ñëpp xam nañ ne juum na ni waaw boo xoolee commentaire yi sax bi nga xam ne ne ñëpp comprendre ne arbitre bi dafa juum waaw juumam ni nit ñëpp ay juum ñun dañuy juum arbitre bi day juum loolu kase la waaw juum na waaw jéggal nañ ko bu baax loolu kase la quoi si. jàpp am nga ndam. waaw loolu laa jàpp quoi ak samay mbokk tamit loolu lañ jàpp waaw dañoo jàpp ne nig arbitre bi nig la rek dafay juum mais li si des mu si loxoy CNG suñuy kilifa ñoo fi ne ñu baax ñoo fi ne waaw ñu ngi liggéey ñu ngi gis li ñuy liggéey ñu ngi gis lépp waaw kon dañ koy rafetlu bu baax di leen déglu suñuy kilifa yooyu noonu waaw. démb ñu gis si tëbu ngor mbooloo mi. man damaa ñëw sa koñ damaa jom damaa yaakaar ne mbër bu mag a mag mag mooy mooy bëre mbooloo moomu yëpp topp sa ginnaaw. waaw loolu du dara loolu mooy loolu loolu yàq rek la waaye xam li nga bëgg nga siy neex li ñu ñu bëgg nga siy nekk ak ñoom loolu la quoi yee xale li mu moom nga jox ko mag li mu moom nga jox ko xeebal kenn bisam loolu rek moo ñu ko may ah fulla ak fayda ñu judd tamit loolu nekk su ñun loolu dong la quoi si. sa tóndoo loola waxoon de mag lu mu moom joxoo xay lu moom joxoo ba tey ak si fii waaw loolu mooy àdduna burul mbër burul burul làmb sax loolu nga war a doxalee loolu mooy àdduna quoi waaw àdduna moom noonu la quoi àdduna day rafetal foo mënta ne boo gisee lu ñaaw sax balaa muy jox sax demal nga rafetal doo si tànku jàmm loolu mooy àdduna quoi waaw. gannaaw bu làmb jeexee Siteu Siteu bu Ngor fu mu jëm. man jëma fenn. maa déglu sama kilifa rek Pape Diagne lu mu wax rek maa ngi si loolu moom laa déglu quoi. amul kekk gu ne sa ñi nekk si làmb ñoo nekk sama xel li Modou Lo nekk sama xel yi mu yor loolu moo nekk sama xel mais maa ngi déglu waal sama ménagère rek lu mu wax rek maa ngi si loolu. ci kanam damay entraînement yi waaw damay dem entraînement yi kon kooku waaw du démb quoi démb dañoo ñëwoon rek mooy loolu mais ñun ñu ngi suñuy waa di waajal bu baax. waaw. da ngay teewaat maa ngi déglu sama kilifa rek lu mu wax rek sama directeur moom lu mu wax rek maa ngi si loolu quoi daa waaw daa moom lu mu wax rek man maa ngi si loolu. jërëjëf. jaajëf waay kontaan fépp. waaw di nuyu ñu ma doon ñaanal ñëpp fu ñu mënta nekk xam nga ñu ma doon ñaanal ñiy def seen déplacement ñëpp ñëw su mel ni ñoom sëñ Xaadim dafa jóge ba Touba def ay xam nga ñëw ngor lu mat une semaine ngir sama komba ma koy sant bu baax a baax yow di sant di sant àlla ba borom Bambay maa ngi koy sant moom tamit bu baax dafa def ay déplacement xam nga taal otoom ñëw ba ngor ñaanal ma loolu day ñaanal di iki alalam di ko si def waaw di sant ñëpp di sant daa maa ngi koy sant bu baax taal na otoom dugal fu ne génnal alalam di ko si def waaw di def lépp bar sëñ Touba di sant mafia Inco bi Inco maa ngi sant mafia am bi yëpp mafia Inco waaw borom Joal ak Mbour borom mar waaw maa ngi sant mafia am bi yëpp waaw di sant tamit saa Touba maa ngi koy sant bu baax a baax def na déplacement am sama kër ngeem ma ñibbiwaat ñëw esat maa ngi sant bu baax a baax a baax waaw bés bésu démb bi nekkul bés ma waroon ñàkk bésu démb bi damaa bëggoon a wala sama bopp loolu kese la waaw di wax ne ñii si kaw nañ ma may loxo rek waaw ñii si kaw rek waaw dinaa daan keneen ko dul Bébé Bismi waaw te dinaa daanaan beneen jël bu gën a rayaat bu dul Bébé Bismi incha allah ah. te diggante Guiro Seras. mënuma su wax mënuma su wax waa. làmb la de. waaw man tollootuma fu may waxee nañ ma jox diw. waaw parce que li làmb di laaj dama koy def ñun làmb ñu ñoo siy ñàkk. làmba làmb dañu si am dara ñu dañuy pare si làmb di doxee ay bor kon làmb ñun ñoo si ñu gañee ñu kon du ma taxaw fi naan dañu ma jox diw waaw promoteur yi lépp luñ bëgg mu ngi si man du dara nag fulla ak fayda dong la waaw kon ñun ñu ngi si làmb ñu génn si làmb ku ma làmb boole rek dañuy làmb ba mu neex waaw ku ma làmb boole dañuy làmb ba mu neex waaw maa ngi si dinaa daan keneen ku dul bébé bis mi incha allah si kàttanu yàlla. waaw dëgg la àdduna ñëpp dañu doon xaar Siteu dañ ko doon xaaree poids bu bare amaana ñun ñu ñu yor ay nigu làmba lañ ay kilifa lañ àdduna ñëpp ci ñu ngi dégg dem na voyage ñu ngi xaar doole ju bare waaw mais Siteu dafa indi doole ju bare poids bu bare samay kilifa xool ma xam na lii ni baaxul. xam na kii bébé bismil bu la dëbee naax da lay kal te bu la kalee boo amee poids mën nga daaneel sa bopp ñu liggéey si loolu liggéey si contact bu baray physique endurance bu baray ba poids bi yëpp dañaat waaw poids bi bi ngay dindi nag metti woon na lool ku mosul jël poids dem yokk poids ñëwaat xam nga rek boo nekkee xale da ngay jàpp na da ngaa war jël poids da ngaa waa da ngaa war a ngand day poids bi yëpp ñu def ko doole ye moom biñ jàppantee moom xam ne Siteu am na doole wala amul doole adversaire bi moo laaj loolu mais yeneen adversaire yi di ñëw sans dépend bi li muy laaj rek adversaire bi ñëw ak li muy laaj waaw bu dee xeex daaxuñu xeex mais dañoo teeloo suñu bopp ne sa loxo bu mu jog sa loxo bu mu jog moom day xeese mee ko mu mee ko loolu parce que xam nañ man li ma capable pour encaisser ko nee nañ ma moom day xeese mee ko mu xeex si xeex bi nag nga koy naxee si xeex bi lay naagoo jàpp ne moo la man loolu dong woon waaw. waaw encaissé moo tax ñu bàyyi wa encaissé du dara parce que encaissé boobu noonu nga ko mën a juumloo bis mi champion la waaw boo ko bàyyi mu bëre rek day bëre waaw parce que dafa mën a bëre trop moo tax foog xeexloo ko mu fàtte bëre waaw bu dee xeex ñun mën nañ ko trop dañoo yëkkati ay millions fay ko ay coach bar sëñ Fallou lu mat si un million seize cent fay ko coach ngir entraîner boxe waaw ñu ñëwaat ne ñu ñibbisewaat xam nga rek suñuy kilifa tamit waaw ne combat bi jànge nga si xeex lu bare mais du làmbu xeex da ngay dem nga bàyyi ko mu favoriser xeex bi nga naa ko si bëre bi te boo xoolee noonu la mujjee dafa xeex dem ba jàpp ne moom moo man moo waaw ñu nax ko si bëre daal. waaw mais ku soog ku signature contrat lañ gis Ada Fass daal di ñëw doolee la te moom moo gëj a bis bëri woon nañ boobu daal di mbaa mu koy daan mais ñu bëri tamit jàpp ne Ada Fass am na kàddu yoo xam ne y woon na ko war ko foo man maanaam moom depuis mbapat la aada dañoo bokk ay mbapati mbapat muy jël muy jël poids lourd may jël poids léger waaw kon loolu dafay yàgg quoi aada man ak moom du làmb comprendre nga aada day yëkkati ay alalam di ko si def di ma di ma boolee ay nigam kon man ak aada du làmb comprendre nga mu doon ku baax yee fu mu xam da koy mu xam da def ak man ñuy waxtaan si leneen lu du làmba kon kooku sama waay la waaw du làmb quoi waaw. kon du ngeen bëre. aara non non duñ bëre non non. duñ bëre. Ah. waaw gëm-gëm boobu waaw moo tax boo ne ma jëm ne dama la naan moo loo yor ñun su loolu la ñu sas. parce que man neex damaa nekk mbërum yee te man fu ma dëkk ay kilifa ñoo fa dëkk te kilifa bu si nekk la mu yor ak la muy wéetalikoo suñu borom dama koy dénk yee kon man loolu lu ma gëm la man entraîneur rek lañ ma sas du lekk du naan du dara entraîneur rek waaw entraîneur rek lañ ma sas waaw te ñu ngi si bu baax a baax waaw mbooloo mi du dara mbooloo mi ku si nekk mën naa la wax këram wax la wan la këram wax la kii mooy yaayam kii mooy papam luñ dund la suñu biir te eh, amaana ñun bi ñuy li ñu bàyyi ngor sax man bi ma génnee damaa jàpp ne sax kaar yi demaguñu naka di kaar yëpp dem nañ li ngeen mbooloo mi des ngor ak li des si stade bi si biti du dara sant yàlla rek la eh, am na yeneen bés yu nekkaa suñu kanam eh, bu jàppale bi yokkoo rek si la si la ñuy xam bés yooyu noonu te stade bi ñun dañoo soray quoi waaw stade dañoo soray trop moo tax mbooloo benn bi mënoo ko gis liggéey stade bi li mu ñu soray mais loolu lépp taw feex si jaajëf jaajëf kontaan bu baax aja